ñu mbokk Maodo Faye moo ko doon def invité ci benn waay par hasard laa ci yem ci ci internet xam naa ne du ñàkk sama yenn mbokk ak samay xarit yoo xam ni bu ñu seetaanee sama bosu tey bi dañ ma xaw a mere dañ ma blâmer ndax euh, kooku nga xam ni moo waral may tontu euh, wax dëgg yàlla du sama catégorie nous ne boxons pas sur le même ring waaye nag euh, tontu ma mënul ñàkk duma moroomam ci ay at duma moroomam ci parcours jaar-jaar duma moroomam ci tolluwaay tey ji ci réew mi kon kooku duma moroomam waaye nag nit ki mënut a yëkkati ay ay kàddu di la ko jëme nga dégg ko noppi am na ko arab yi di waxee dëgg la léeg-léeg noppi ci waxi ñenn ñi moo gën di réponse waaye day am loo xam ne day soxla woo ku ko leeral ba ma liiree titre post bi ki ko bind déjà ni laar la ci français benn phrase rek nga def ci ñett ba ñeenti faute loolu moom déjà cinglante s bi mu def ci commencement bi kon kooku xamul sax li muy bind lu mu doon kon kooku du nawle ci xam ci wàllu xam-xam ba tey moom moomu nag feeñal na boppam laata muy daaneel waxam ndax àgg na ba ci di reylu ay mbokki jullitam ne dañ leen war a rey chiite yooyu nga xam ni ñoom lay dëgërloo ci ñeenti soxna weesu ko chiite yooyu ñoom takfiir nañu ci saxaaba yi ñu bare saaga nañu saxaaba yi àgg nañu ba ci saxa saaga njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam notamment radiyallahu anha ak ñeneen ci saxaaba yi kon ñooñu seeni wax jarul wax ku taxaw ba naan dañuy rey diw dañuy rey diw wax bi nag àgg na foo xam ni mi ngi bëgg a jéggi dayoo naan dañuy saaga mag ñi yéen yéen saaga lu mag ñi xale bu réew bu nekk ci biir kër mag mu baax saa yoo génnee di saaga ñi ci mbedd mi yaa saaga lu mag ma ci biir kër ga mag ñooñu ngeen di wax dañ leen di saaga yéen yéen a comporté wu comportement buy saaga mag ñi loolu moom nañ ko clore débat bi mu yem foofu fii kenn dégg ko fi ku fi saaga benn mag wax nag lu bokkul ak xam-xam ñu wetti sànni ca àll ba ku ko jàppe saaga tant pour toi li lay reelu nag ci mbir bi mooy alhamdulillahi rabbil alamin moom xamuma ndax Touba la dëkk la wax nee na Touba laa dëkk ak rek dëkk Touba man luga laa dëkk juddoo ma fi yaroo ma fi màgge ma fi fanweeri at ak ñaar laa fi def sama cosaan nag mi ngi fii soriwul dëkk bu ñuy wax Ngàjji Saar foofu la samay maam jóge woon Cees laa juddoo yaroo fa màgge fa quartier bu ñuy wax Buntu Dépôt nekk ci diggante cité Pilogue cité Balabeeg Aiglon ak passage pencu Alinguer ma Lamine Senghor cité ñax yooyu ñoo ñu seq ku ma bëgg a dem xam soo fa demee yaakaar naa ne doo fa dégg benn gàkk-gàkk ndaw nag laa jaar comme ñépp alhamdulilah rabbil alamin samay way jur yu baax ya yal na yàlla yokk leen yërmande dalal ma école bu ñuy wax cité Pilo cité Maurice Pilo ñi may dégg nag internet laay waxee waxewu ma sax ci télé internet day wesaaroo séyi ba première classe de CM2 su ma jëlul premier deuxième du ma génn tableau d'honneur kon yaakaar naa ne googu ndaw neex naa nettali ma dem collège bu ñuy wax urbaine garçon lii may def nii moom la Xaadim Mbàkke ifan doon def keroog ndax nii dañ lay puus ci wax dañ lay puus ci wax ma dem collège bu ñuy wax urbaine garçon samay camarade de classe ya ma ko bokkaloon ñi ngi fii ba tey sixième ba ma jëkkee sama note bi ma jëkk am 1403 maa doon deuxième si ci ci ci classe de sixième boobu laaj leen ko ku ñi ma bokkaloon classe ñi ngi fi Serigne Mbacke Ndiaye ngi ci Thiès Dégeen Mbow Assane Sini Ndiaye Badara Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sixième moom Bachir Kanouté ñoo ñëpp ñi ngi fii di dund yal na leen fi yàlla bàyyi ba mu yàgg sixième ba troisième tableau d'honneur lay bokk kon googu ndaw neex naa nettali fi ma amee tuuti jafe-jafe mooy diggante seconde ak première parce que dañ maa affecté ndar condition d'étude ya baaxul woon ma dem lycée feder fa laa defee seconde ak première fa laa amee première partie bac demandé transfert ñu indi ma lycée Malick Sy fa laa amee baccalauréat 1984 kon boobu ndaw neex naa nettali bi ma paree ci sama bac laa tàmbalee def lii ngeen gis ma koy def daara laa yor ci Thiès buntu depp téeméeri élève seede yaa ngi fi bi may jógee cees di ñëw Mamadou Sène ra yal na yàlla yokk uh, wéram yokk dundam yokk njabootam yokk barkeem ñaari doomam la ma tofal ma indi leen fii Louga di leen àggaleel seen alquran ca daara ja ma yoroon Thiès fa la ñu nekkoon googu ndaw neex naa nettali 19 ans laa commencé jàngale alquran 19. 20 21 22 ma jóge fa ñëw Louga bi ma ñëwee Louga daara laa ubbi fii ci kër ku ñuy wax Thierno Birahim Thiam mi ngi ci Louga gii di ma dégg. ba ma jógee ca daaraam jooja laa sanc ci sama daara jii ma nekk tey jii di jàngale fii alquraan diirub li ma nekk ci Louga nag jàng jàngale la ma ñépp xame ànd ak ñi gën ci dëkk bi wala boog ñi nga xam ni kenn gënu leen ci dëkk bi doy na ci seede nag loolu kooko laaj ci dëkk bi loolu la lay wax buntu depp ga ma juddoo yaroo fa màgge fa ku ma bëgg a xam fa ngay dem waaye man dëkkuma Touba Touba nag sama tànk dana fay bari am naa fay wëllëre am fay am di jàmm ji nag xaadim kon yaakaar naa ne loolu lu leer naññ la man sama jeunesse du jeunesse bu bàyyi ay gàkk-gàkk yooyu damay damay gis ku ma bokkaloon ndaw di sëgg déedéet mukk quartier ba ma juddoo yaroo fa màgg fa su ma demee siggi laay def ndax amul lu ñuy fàttaliku ci man loo xam ne lii dafay bàyyi gàkk-gàkk déedéet ci yëfi ndaw déedéet déedéet kon loolu kuy wax naan dama yàq sama ndaw ci ci nangam loolu wax bu yàqu la bi ma bàyyee jàng dem di jàngale ji jaaxaloon na ñu bare am na ñoo xam ne dañu ne kii fu mu jànge waaye loolu <laughs> du ma ci dugg détail la nee na mënumaa wax benn al aaya alquran boo xam ne bii ma maxaarijul xorof ba day normal ah yéen a ngi dégg yéen internet yéen a ngi koy dégg bës bu ne alquran laay tari alquran laay jàngale sama xeex bi gën a metti ci xeex yi mooy fexe ba dongo yi ma yor bañ a yàq alquran su ma neexoon ñetti at yi ma yor xale yooyu ñu ci bari wàcc nañu waaye soxor ci maxaarijul xuruf moo tax yoon wi gudd tajwid liñ ci war a jàng maa ngi koy jàng di ko jàngale ba tey jii damay gën di gëstu ci waxtu wat anam boobu fiq ak naxu ak tajwid ak siira ak tafsirul quran yooyu yaakaar naa ne li ma ci am ku ci bëgg a root mën nga caa roote kon foofu du tiitar sama komba xam naa ko nee na du ma ustaas <laughs> maa naw ustaas yi ci réew mii waaye ñooñe yaakaar naa ne ku ma ci dajal da nga xam maay kan nga ne kaalaw bañ a kaalaw ku moom kaalaw kaalaw ba mu neex ma laay def ñu fiy kaalaw ëpp ëpp ñu ma ci sañ-sañ ñu ñëw nag ci wax ji nag léegi yow mii ne da nga am xam-xam da ngay këfin nga ne alxuraan day évoluer kooku bàyyi naa kook boroom xam-xam yi xàmmee woon naasix ak man mansuux dugg ci alxuraan di wax naan ba yàlla ki fi ne alxuraan day am tatawur yooyu kàcc yu wér tatawur li nga wax dafa garaaw te dangereux mooy alxuraan day soppiku day évoluer dégg nga loolu c'est de la poudre aux da ngay xëpp nit ñi lëndëm moo taxit waa ji yi nga xam ni moo toog ak yow di la laaj ne la ndax yaa ngi xool li ngay wax nga naan mën ngaa indi téeméeri xadis yu contradictoire boroom xam-xam yaa ngi lay dégg tamit yaakaar naa ne danañu am fulay tontu la ci loolu ñooñu la doon tudd nga naan leen da nga leen di rey ñooñu ñoom soo demoon ñu tëralal la jàngal la ba nga ba nga ne ar te la ñu yor ñoom du yëngu ngay wax kutubu sitta dangaa xam sax luy kutubu sitta kutubu sitta yooyu moom la nit ñi di xëy di nuur yow nga xëy di yi di wër réew mi mel na xar mu dagg fu ñu la fekk yaa ngi ci plateau de télévision yi di waxi caaxaan fu la fekk yaa ngi ci ay tappale parce loolu nga tàmm l'argent facile nga naan xadis mahjur loolu mooy lan lan mooy loolu wax ko nit ñi su fekkee da nga ne xam-xam ngay waxe xadis day yaakaar naa ne li ñi jàng nañ ko jàngin wu xóot def nañ ci ay ay effort bokk xadis daal xam nañ ci saxiix ak ca ban saxiix xam nañ ci xasan xam nañ ci daif xam nañ ci muallaq kam ci munqati kam ci muaddal xam ci mursal ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye xamuñu ci mahjur leeral ko nag leeral ko waxal luy mahjur su dee da nga am xam-xam nga indi ñaari téere nga ne ahkaamu sharia alqaatia dal ne keneen firi na ko shara na ko tudde ko ahkaamu ah, sharia alxaasiba ñaar ñooñu mahjul kenn xamuleen kenn téere bi ci boppam sax boo ko tàppee woon ci internet doo ko gis li may wax nag yéen a ngi may dégg dem leen ngeen tàppe ko yéen ñi xa xam ndax internet nag mooy seetukaay bu wóor bi léegi moom ci wér lo lépp lu nit def rek soo demee fekk fa trasam te loolu kenn du ko gis fenn boobu téere danga ko créer wala boog nga ne diw la tudd wax kooka dundam biographie am as lëf nit ñi mën a xam kooka kana nga naan ku tudd lan Hachim yooyu mooy yan chia yooyu ngay wax naan dañ koy def nangam nangam du lay waa chia ngi koy def suñ ko defee taxul parce que waa chia duñu référence ci diine ji ku ko mën a def ku me ku weesu yenti soxna li wérte wóor bu ñu sukkandikoo ci xam-xam yi nga xam ni moo jóge ci alquran ak hadis def nga lu wàcc yoon loolu mooy wér ay ahlul bayt ak su nangam lu mu mën a ku ko def def nga lu wàcc yoon wax ji nag foofu laa ci yem tey foofu laa ci yem li wérte te wóor daal mooy indiwloo dara mënoon ngaa bañ a dem ci sa émission boobu parce que yokkuloo dangaa wàññi yooyu ngay bind nag di ko def ci internet bi li ma doon wax ñëpp rek laa lay wax man gune may dëkk waaye maga may daan su dee loola daf laa metti li ma wax ci xam-xam laa ko teg tontuma ci xam-xam soo fekkee ne dafa am lu la ca metti da ngay sol sa daal lu fekk si ma fii Louga laa dëkk dëkkuma Touba te fi ma dëkk ci Louga ñëpp xam nañ ko boo wàccee gare routière soo joxee suma tur ñu dugal la oto nga ñëw bu la neexee nga woo ma ma ñëw jël si la suñu jàkkaarloo da nga wax leneen lu bokk teg loolu ngay wax. maa ngi jéggalu nag mbokk yi bu baax a baax a baax tont bi ma doon tontu kooku waaye mënut ñàkk parce que lii ma ci wax akus néew am na ñu ko xamul te mën na leen a induire en erreur nit nag du wax boppam maa ngi ciy jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullah